waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur de sant di commencer présentation bi ci responsable yi nekk fii teew point de presse bi ki nekk sama càmmooñ muy Amidou Wane nekk à ma droite Amidou nekk responsable au niveau de la section de Yoff nekk président mouvement Karim Moo Wóor nekk membre commission membre de la commission communication du PDS et membre aussi de la fédération nationale des cadres du PDS. ki nekk sama càmmooy al Wali Albert Ndong moo jiite fédération départementale bu Fatick bokk ci commission communication waaye aussi nekk euh, aussi euh, membre du secrétariat national du parti démocratique sénégalais. keneen kii mooy Malaw Ndiaye nekk secrétaire général adjoint de la section de Sicap Mbao. Il est membre de la commission communication et il est membre aussi du, du comité directeur et de la Fédération nationale des cadres libéraux. man mii di wax ak yéen man maay secrétaire général de la fédération départementale de Linguère nekk vice-président de la commission communication nekk aussi membre du secrétariat national du parti démocratique sénégalais. am na yeneen responsable yoo xam ni ñëw nañu ànd ak ñun bëgg nañu fekkee ndaje mi mooy responsable des femmes de Fatick notre responsable euh, de la communication. de, du département de Linguère on a aussi des cadres qui sont venus des départements donc bu ngeen gisee mbir mi démb lañ jël décision pour waxtaan ak Sénégalais yi waxtaan ak Sénégalais yi ci situation boo xam ni jàpp na ni bu doy la réew mi jamono ji mu nekk dafa nekk jamono ju metti jamono joo xam dafa compliqué te loolu depuis ba ñu invalidé candidature Karim Meïssa Wade ñun ñu jàpp na waa PDS na loolu muy injuste la loo xam ne dañu ko war a xeex boobu la ñu ngi koy xeex euh, muy xeex bu yàgg boo xam ne commencé nañ ko depuis boo xam ni assemblée nationale dugal nañu fa benn proposition de loi suñu député def dugal ko fa ba voté ko bañ ko jógee bañ daanalee proposition de loi boobu au niveau du conseil constitutionnel suñu dem nañ bokk dialogue national parti démocratique sénégalais boo xam ni dialogue boo xam ni le président Macky Sall woote woon toutes les forces vives de la nation pour ñu daje waxtaan pour l'intérêt du Sénégal parti démocratique sénégalais demoon na ci réunion boobu bokkoon na ci dialogue bañ fa jógee aussi ñun ñu defaat beneen recours en référé. pour ñu décret bi président Macky Sall jëloon ñu ne nañ ko suspendre ndax ne jàppale ne dafa jalgati yoon loolu def nañ ko aussi amuñ ci ndam loolu lépp ba mu wéyee ñu gis ne loolu lépp def nañ ko bañ koy xeex aussi suñu président suñu candidat ki suñu leader bi ñu yaakaar buy yaakaaru PDS ñëwuloon te loolu sooxee tax na liggéey bu gën a sooxee loolu nag moo tax tey ñu gis ne démb génn génnaat na wane benn ci benn xibaar tweet ne moom li mu gis mooy jàppaleegul kenn mi ngi waxtaan ak ñëpp te loolu bañ ko jàngatee daal dañ jàpp ne daf ñuy war a daf ñuy fàtt am na ñuy fàttali mu ñuy fàttali 2019 2019 dañu fi nekk ñuy wax ñu ñu neen boycotté te loolu muy PDS nekk parti bu mag parti boo xam ni lim liggéey Sénégal jàpp naa ne warul naax saay ñu ñu nekk ay jeunes yoo xam ni depuis 2012 ñu ngi ci parti bi Abdoulaye Wade ba mu fi nekk ñun mosuñu mosuñu nekk ministre mosuñu nekk dara mais depuis 2012 ñu ngi xeex ci parti bi bu ñu toogee ba tey ne dañuy war a seetaan tey duñu bokk ci élection yi dafay rey parti bi loolu nag moo tax ñun ñëpp ñu taxaw nekk benn gis ay responsable yoo xam ni le plus de vingt cinq fédération yoo xam ni d'accord nañ ci li ñuy wax ak ay quinze députés yoo xam ne ànd nañu pour ñu ñëpp ñu dajee nekk benn pour xool tey Sénégal fi mu toll ban candidat moo gën a baax ci Sénégal Sénégal nag boo ko doon tey boo doon résumé situation bi ñaari candidat ñoo nekk en face benn bi mooy Bassirou Diomaye Faye coalition Diomaye président ak beneen coalition Amadou Ba suñu jàngat ak suñu li ñuy xalaat ak suñu xam ci politique ak ni mu yàggee ci gérer état gis nañ ne candidat mooy fay amul expérience xamul fu mu jëmee réew beneen côté bi aussi gis nañ ne Amadou Ba am na expérience te am na dal waaye nag fàttewuñu président Macky Sall li mu def ci réew mi am na loo xam ne def na ci lu baax waaye fàttewuñu recul démocrate yoo xam ne def na ko ci réew mi recul yoo xam ni ñun PDS bopp depuis fukki at ak ñaar ñu ngi koy xeex loolu mënuñ ko fàtte waaye nag loolu terewuñ tey ñi xam ne choix Amadou Ba dafa nekk war a nekk choix boo xam ne raison la warul nekk choix boo xam ni suñu xol lañu jiite mais suñu xel lañu jiital xel bi nag mooy l'intérêt Sénégal intérêt Sénégal tey mooy ñun ñëpp ñu ànd jàppale Amadou Ba mu gagné pour réew tegaat ci jàmm jël ci dal parti démocratique sénégalais yàgg na def lu mel noonu donc suñu mébét mooy parti démocratique li mu doon def démb ak bërki démb ñu ñu ñu defaat ko tey te président Karim Wade bu ngeen di fàttaliku defoon na benn tweet le 21 janvier di wax tout de les façons on partirait pas on partirait pas on va participer à ces élections d'une manière ou d'une autre donc ñun dañuy continuer ci xel moom rek war na ne ñun mënuñu toog bañ a bokk ci élection yi loolu la ñuy woote di li lance un appel à moom ci président Karim Wade di lance un appel au président du groupe parlementaire Mamadou Lamine Thiam di lance un appel à tous les députés tous les responsables fédération yépp ñu dajee nekk benn bañ a tasaaroo parce que tasaaroo amul njariñ ci ñun njariñ bi moo ñu dajee ñun ñëpp nekk benn la coalition Amadou Ba pour ñu gagner élection au premier tour bu ko defee ñu mën a redresser Sénégal parce que Sénégal tey jàmm la laaj Sénégal stabilité la laaj parce que xam ngeen ne dans quelques mois dañuy dugg ci benn période boo xam ne dañuy dañuy am période ak gaz te période ak gaz fu mu am stabilité ak dal dafa dafa dafa dafa dafa rab donc loolu moo doon suñu message di sant ñëpp di sant militants yi def déplacement ñëw ànd ak ñun di sant responsable di sant yéen journalistes yi xam ne vraiment yéen a ngi def bu am solo weeru koor lañ nekk waaye vraiment dara umpute Sénégal ngi leen sant bu baax di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.